xibaar xibaari biir réew yi dañ koy doore ak premier ministre Ousmane Sonko moom nag déclaration bu mu doon amal ca Matam di wax ci accident bi nga xam ne moo am ci caravanu Pastef Touba Mbacké ba kenn daal cay ñàkk bakkanam ñu koy wax Modou Fall nekkoon membre ci GPS bu tuuba ak ñu bari nag daan nañ cay am ay gaañu gaañu moom nag Ousmane Sonko mi nga xam ne nag jëloon nañu dogal ngir daal di dakkal bi lépp campagne waaye nag nee na ñoom nag li nga xam ne moom la ñuy doxalee ci seen ci seen. politique bi waaye itamit ni nga xamante ni noonu la ñuy doxalee ci seen wàllu politique mi ak niñ ciy doxalee dafa wuute nag ak régime bi nga xam ne moom moo fi nekkoon nee na nag ñoom seen membre waa Pastef yi nag dañuy xeex ngir daal di amal li nga xamante ni mooy dëgg waaye xeex ngir uh, daal di uh, convaincre ñi nga xamante ni ñooy sénégalais yi ba am changement bu wóor nee na nag ki nga xam ne mooy patriote bi nga xam ne da cee faatu nag moom uh, da doon xeex ngir daal di xeex ci dëgg waaye xeex ngir convaincre sénégalais yi nag waaye nag mu jaar jaarale ko ci fi nga xamante ni mooy projet bu pas bu Pastef euh, waaye nag nee na liñ ko war a nag mooy ñu daal di wëyal campagne bi euh, ba tax nag euh, moom nag mu daal ci am victoire waaye itamit Sénégal am ci victoire ndax nee na loolee rek moo ko mën a moom nag mi nga xam ne campagne bi buñ ko wéyalee nag dinañ daal di arrêté bépp xumbaay boo xamante ni doon na ca am ngir daal di koy ndokkeele Modou Fall moomu ci génn àddina waaye daat ko ci respecté ñu dem ba tey ci wàllu woowu nga xam ne tiis bi dal ci waa Pastef nag ba tax na nag mbooleem ñi nga xam ne ñooy classe politique bi nag uh, bu réewum Sénégal ñoom nag doon nañ ko tiislu di ko ànd di ànd ak ñoom naqar bi uh, ba gis nañ ne kii di Amadou Ba borom jàmm ak njariñ ak Barthélémy Dias mi nekk tête de liste sàmm sa kàddu ak honorable député Pape Djibril Fall waaye itamit uh, ñëpp ñoo xamante ni bokk nañ ci leader politique yi ba ci kii di Bougane Gueye Dany ñoom nag gis nañ leen ñu bind ci seen face Facebook di naqarlu ak bokk métit bi ñii di waa Pastef waaye jaale seen mbokk di jaale mbokk mbokk ki nga xamante ni moo daal di faatu di ñaanal ñi nga xamante ni nag ñoom dañu cee am ay gaañu gaañum yàlla daal leen di yëkkati ah, bu ñu sukkandikoo nag ci Ngoone Saliou moom nag nee na ah, cortège bu premier ministre Ousmane Sonko dañ ko attaqué fene ca añam nag waaye nag nee na gendarmerie dañoo nekkee woon ca barab ba tax nag ñu daal def seen intervention maintenir ful ba waaye nag am na ñu bari ñoo xamante ni jàpp nañ leen ca ah, ki nga xamante ni nag mooy Soleil digital moom mooy xam le ne premier ministre Ousmane Sonko war naa yëkkati ay kàddu ci wax ji ñu daal di jibal ñu dem ci rapport boo xamante ni nag dafa jóge ci waa ENDS ñoom nag muy wax ne nag taux chômage bu réewum Sénégal dafa daal di wuute lool ak taux chômage bi ñu gisoon ci 2023 bi nee na nag daf bi jamono ji ñu nekkee ci 2024 bi nag lu toll ci vingt 21 virgule 6 pour cent nag moom moo fi nekk bu nee bu dee 2023 nag moom 18 virgule 6 pour cent la woon nee na nag chômage bi nag ci milieu rural bi la gën a fësee ndax ñoom toll nañ ci vingt cinq pour cent bu dee ci urbain bi nag ñoom ñu ngi ci 19 virgule 3 pour cent jigéen ñi nag ñoom ci seen côté la gën a méttee ndax ñoom ñu ngi ci trent 34 pour cent contre 12 pour cent virgule 12 virgule 4 pour cent bu dee côté góor ñi la ñu dem ci kii di président président Macky Sall moom nag euh, daal di nay wax ay programme boo xam ne mu ngi ko tënk ci juróom-ñaari mbir euh, bokk na ca nag ñu daal di taxawu euh, taxawal benn gouvernement boo xamante ni dafay boole waaye ñu liggéey fexe ba daal di fexe ba Sénégal daal di am ak déggoo ñu daal ci lëkkaloo ak njiitum réew mi waaye itamit ñu engagé ginnaaw bu ginnaaw ñetti weer yoo xamante ni dañ leen a tabb ci bopp assemblée nationale ñu daal di amal ay assises waaye itamit daal di indi ay tontu yu gaaw euh, di fexe nag daal di soulager ñi nga xamante ni mooy population bi nekkoon euh, ci ay jafe-jafe ci inondation bi waaye itamit programme yi bokk na ci nag ñu xamle euh, dañuy fexe nag ba daal di tàggat ndaw yi ci wàllum entrepreneuriat ñi nga xamante ni nag ñoom dañoo am ay diplôme te ñu daal di leen di fexe ba jox leen ay jumtukaay bokk na ci tamit ci programme yi ñu daal di wàññiwaat yenn ci instruction yu réew mi waaye itamit ñu wàññiwaale waat trésorier vu état yi nee na nag li nga xamante ni moom la askan bi di dundee ñu daal di wàññi njëg gi nee na tamit ñu daal ciy tegaale li nga xamante ni mooy plan euh, plan plan Sénégal émergent ñu daal koy boole ñu daal koy taxawal ci li nga xamante ni moom lañ euh, nekkee jamono ji nag ngir Sénégal daal di mën a euh, teguwaat ci yoon moom ba tey président Macky Sall moom nag mooy xamle ne euh, situation bi mu bi mu gis ci réew mi nag moo waral nag mu daal di nangoo euh, nekk njiitu coalition takku euh, takku wàllu Sénégal moom nag nee na bi nga xamee ne nag moom mi ngi génn réew mi nag dafee bàyyi li nga xamante ni nag mooy mooy lu jëm ci wàllum lu jëm ci wàllum engagement bu wóor ci réew mi moom nag la fi daal di bàyyi woon loo xamante ni nag émergent économique bu baax la fi bàyyi woon waaye nag nee na malgré Covid 19 bi fi jaaroon ak. guerre yi nga xamante ni moo amoon ci monde bi nga xam ne yàq na lu bari ci monde bi waaye teewul nag moom euh, bàyyi woon na fi émergent économie bu baax nee na situation bi nga xamante ni moom la réewum Sénégal nekk nekk na loo xamante ni nag euh, dafa doy lool nee na économie Sénégal nag fi mu ne nii nag dafa nekk ci ay jafe-jafe euh, te li ko waral nag mooy ñi nga xamante ni ñoo jiite réew mi ñoom ñoo ko daal di waral nee na bi am ca ONAS ak feneen ca ASER nee na loolee tax na nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy investisseurs yi seen xel dafa tàmmulee tey ci réew mi nee na naka nguur gi daal am nañ lii di populisme waaye eh, lii di manque cohérence nag ñoom amuñu ko nee na itamit am nañ ko nee na itamit eh, Sénégal nag nee na hypocrisie bi nga xamante ni moom lañ nekk nii ci réew mi eh, buñ ko bàyyiwul nag Sénégal dina dem ba lii di dictature dina fi daal di jëm ñu daal di dem. ci ki ñuy wax Alioune Tine nekk njiitu Africa Jom Center moom nag mi ngi ñaan kii di Waly Diouf Bodiang mu daal di mu daal di baale ak jéggale waaye itamit waxtaan fexe ba am relation yu dëgër ak ñi nga xamante ni mooy liggéeykat ya ak syndicat yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ca port autonome bu dakaar nee na nag moom port autonome dafa nekk loo xamante ni lu am solo la ci réew mi ba tax na dafa war a nekk barab boo xam ne bu jaar yoon la nee na nag bonne gouvernance na nekk na loo xamante ni lu ñuy rafetlu la ndax nee na mal gouvernance moo tax nag jafe-jafe yu bari ñii di ay njiit ci waa port autonome di Dakar daan na leen cay dal benn membre bu bokk ci parti Pastef moom nag police da ko jàpp ndax nee nañ nag da doon dawal te yorul permis de conduire moom nag ci auto yi nga xamante ni dafa doon am dañ ko doon dawal ci campagne Pastef yi nag moom ci la yoroon benn mu nekkoon couleur rouge moom nag ak atam mi ngi toll ci ñaar fukki at ak benn waaye nag nee na ba muy dawal tamit respecté wul code de la route ñu dem ci matam premier ministre ousmane sonko euh, mom nak wax na lu jëm ci walum infrastructure locale ya nga xamanteni doon nañ ko fa def euh, bokku na ci université bu matam euh, nee na budget bi nga xamanteni doon nañ doon nañ ko ci génné di wax né mom lañuy ñuy université bi na ñom seeni gis-gis bokku na ci ne lolé budget bobé man nañ cee defar bénn ba ñaari université ndax nee na bu way professeur yi rek dañ ci xayma lu toll ci 1,6 milliard franc CFA yo xamanteni ni bénn na bu né mom lañ koy loolee waaye itamit nee na bañu ñu ba lañ ban nak ki di ki di entrepreneur bi mom xam na nak li ay sir ay fraction da ca am waye nak nee na dina tabax ben dig bo xamanteni dina daal di protéger université ba ngir inondation ya nga xamanteni mom mo di am fofu nee na nag lii dafa nekk négligence boo xamante ni kili kilifa yi yoroon réew mi ñoom nag daal di nañ koy amal ca nañuy doxalee foofee ca Fuuta waaye itamit nee na li li li nga xamante ni yamul foofa ca Fuuta rek waaye daal di nay wër territoire Sénégal yi nee na projet bi nga xamante ni nag moom lañ waroon na doxalee noonu dañ kaa doxalewul ba ci bokk na ci route bi nga xamante ni moom la ñuy wax route d'Andemayo waaye itamit désenclavement ba bañ ñu xam ne dañ koy dañ du désenclavement bu Ferlo waaye itamit ab adhération adhé adara yoon boo xamante ni nag moo nekk ca war a soo war soo gi nee na yooyu yëpp nag nañ ko waroon doxalee dañ koo doxaleewul nee na itamit hôpital ba nga xamante ni moom lañ liggéey foofee ca Matam projet ba nga xamante ni moom moom lañ ko doon liggéeyee dañ koo mujj changé daat koy tuddee secret de défense nee na nag mbir yi lépp dinañ ko leeral waaye itamit maatam dina am changement bu jéggi dayoo xibaar yi biir réew yi nag dañ koy jeexalee ak Abdou Koumba Diop nekk njiitu mouvement Kale nekk tête de liste bu coalition jàmm ak njariñ fii ci Louga moom nag demoon na seeti Serigne Daouda nekk kilifa diine ngir sàkku ci moom ay ñaan ci élection yi ñu jëm ñu daal di teewlu ay kàddoom ci micro DBT. Abdou mi man dey bi ma dalee dégg lu baaxam gisuma ko jam naa ci barab yu bari dégg ñu koy tudd hôpital bi dégg ñu koy tudd ba yàgg ma ne waaw moom moom kan mooy abdu faf ñuy dem dem ba ma xam ko ci sababu bo xane pap sey mi dafa ñew wax ma mané ko ah koku day dégg na lu baaxam fu nek ah daanu nak dajul suuf waye ku yegg suuf da nga xam ak suuf man na sama xel li tax mu dal di wut dara andak wa Cheikh Omar hmm. di wut dara ànd ak waa kër maam Cheikh Mbay mm. sëñ Abdou Mbay sellal mii mm. di wut dara ànd ak waa kër Baay Mëgay Njare mm. sëñ Pape Sey mii ak ñeneen ñoo xamante ni biin yàlla may na leen xanaa sa xel war naa dal kii yor lii rek te kër Baay Pape ko delloo ci la di ne ko koo kii jëfam yooyu rafet na waaye na mun a def ca kër maam Malick Sall gee ah kenn du liggéeyal mag te du <laughs> yàlla nag baax na mënuñu wax ñun ndax mënuñu politique te politique dafa gaaw a eh, tilimal ku set ci ña ko xamul waaye nag kenn du liggéey moom defal yàlla yàlla nga wàcc yàlla des nit du wàcc ci mukk yàlla des waaye xam naa ni jukkoom day ca jukkoo ja rek laay delluwaat te njiit nag dafa war a am jukko ju baax war am jukkoy tab war am jukko jukkoy jukkoy jukkoy jiite te loolu moom mi yàlla denk na wax dëgg yàlla di sant Pape Seye yi nga xamante ni wax dëgg yàlla sama suñu diggante man ak yow Pape Seye moo tax vraiment ñu am relation yi am yow tamit ngay nit baax te wax dëgg yàlla kii moom nekk kenn ci man moo tax gis Pape Seydou ñu bari ñoo def ci dem ci benn kilifa diine nan jaar ci Daouda Ka xam nga loolu nit ku baax ko am yëg-yëg moom mooy def loolu te wax dëgg yàlla yow tamit aussi mate nga ko ñun daal dañ lay ñaanal yàlla bëgg aussi nga ñaanal ñu yàlla aussi nga jàppale ñu te gëm naa ne yaakaar ji Pape am ci yow boo nu ñaanalee jàppale ñu incha allah bi duñ koy rëccu kon sëñ bi daal wax yoom julu guddal ñu daal bëgg nañ nga jàppale ñu ñaanal ñu. am nañ ci yow yaakaar te yàlla bu yàlla bu yàlla tas suñu yaakaar kon sëñ bi vraiment ñu ngi lay sant di la yow nag wax dëgg yàlla ñun xam nañ li nga représenté ci dëkk bi wax naa la ko ay yoon yoon keroog nee naa la tey man la sama benn doom bu mu doon jiite yàlla mu dërëtëw yaa ko jàngal ba mu mën a jiite kon ça veut dire kon am na loola yàlla may te am na loola yàlla defal te nañ koy sante yàlla bu baax a baax a baax aussi euh, kóllëre gi nga xamante ni moom lañu fasante aussi su ma diggante man ak yow yàlla bu ci seytaan am yoonu yàlla bu seytaane am yoon ndax. Euh, kon mbokk yi lii leen indiloon suñuy xibaar di leen jox dig daje ba suba ak jàmm euh, di jaajëfal Ndeye Marème mi féete ci côté technique bi di wax yéen ñu ko bëgg am suñuy euh, xibaar mën ngaa dem te mën ngaa dem Play Store télécharger suñu application bi DBT TV ngir lépp lu fi tukkee ngeen mën koo am à temps di leen jox dig daje ba suba ak jàmm.